monsieur Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal. Elisabeth maa ngi kontaan di la wuyu. may fàttali suñu auditeurs yi ne moom mooy jiite association parents d'élèves bu lycée excellence bu Limamoulaye waaye it euh, secrétaire chargé de la communication bu UNAPES union euh, nationale euh, de l'association des parents d'élèves du Sénégal voilà et étudiants du Sénégal muy UNAPES Marouba Fall ñuy wax ci examen yi nga xam ne tey jii ci lundi bi lay commencer le 31 bac technique ci dañuy door li di seen i examen ngeen amaloon ndaje eh, jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi wax ci li nga xam ne moom mooy seeni i inquiétude seen jàkkare lan lañ mën a jàpp ci seen ndaje googu. waaw jëmmi jamono yee muy le onze euh, août mille vingt daje woon nañu préfecture waxtaane d'ailleurs euh, lu jublu ci examen yi CFE euh, entrée en sixième BFM. Euh, inspecteurs yi waxoon nañ ci liñ ci xalaat ñu rafetlu ñu joxe seeni recommandation bañ ci jógee itam gis nañ ni quand yi ñu waxoon yëpp presque daal respecté nañ ko mais ade amoon na ay jafe-jafe ndax gis nañ ni ci examen CFEE bi ba gis nañu école yoo xam ni ci géejawaay da doon tëmb ci ndox mi xale yi di examen ci loolu lool nag bugguñu mu arrivé ci bac bi bugguñu mu arrivé ci BFM bi bu ñu sañoon autorités yi ci góor góorlu ci ba école yi nga xam ni dañoo ci nekk ci gox yoo xam ni mbënd mi daf leen a yàpp ak euh, euh, dañoo nekk ci ay abri provisoire ak yooyu ñu góor góorlu ba vraiment élèves yi ak professeurs yi mën a def seen examen euh, bañ a xuus n'est-ce pas nekk ci bërëb ñuy seen bu yooyu weesoo am na ay dénkaan mhm. yoo xam ni war nañu ci xalaat muy mbiru dem bi ak dikk bi ndax comme dañuy euh, maladie bi ñuy wax coronavirus moom nanguwul nit ñi di jegeyoo ba transport yi léegi nangootuñoo yeb lu ëpp euh, ñi nga xam ne dañuy toog léegi élèves yi nga xam ne nag dañuy bu ñuy dem examen sept heures et demi war nañoo nekk seen centre d' examen dañuy ragal ñu ci bëri tardé ndax ñu ci bëri dañuy sori seen centre d' examen ñun ñii pour ñëw par exemple euh, lycée Limamoulaye di fi def ci examen te dëkk Kër Massar wala Malika wala fu gën a sori foofu xam nga bu ñu taxawee ci arrêt bi bus bi ñëw place yi nga xam ne toog fees na ñoom na ñuy def dañuy taxaw di xaaraat. léegi dañu bëgg nag ñu may leen bu ñu yoree seen convocation ñu xam ne ñii dañuy dem examen ñu may leen ñu yéeg wala boog ñu wutal leen bus particulier yoo xam ne day def ramassage élèves yi nga xam ne dañuy kii dañuy defi ji examen mhm. bu ñu dajeek ñoom ñu ramasser leen yóbbu leen vraiment ci anam yoo xam ni euh, yu mucc ayib la ba ba ñu bañ a tarde mhm. bu ñu jógee ci transport bee tam wax nañu problème mu lekk gi ndax xale yi réere wuñu mbir ni dañuy teel a xëy fajaru ndax bañ a tardé sept du war na leen a fekk seen centre examen ñooñu am na ci ñoo xam ni du ñu ndékki dañuy yàkkamti ñenn ñi sax du yàkkamti wante seeni parents ñoo euh, la seen loxo jotul seen digg ginnaaw nga xam ni wala ñoo añ sax dañuy xaar ba dix heures wala midi seeni papa soog indi dépense beeg yooyu mhm. ñooñu xam nga bu ñu ñëwee ci école bee tam euh, toog fi lu mat ñeenti waxtu wala juróomi waxtu te duñu lekk duñu naan dafay metti mhm. léegi dañu ni ci biir école bi ak ci biti école bi dañuy tere ku fa jaay lekk ndax loolu yëpp pour sàmm élèves yi la mhm. wante tam bu ñuy sàmm élèves yi tam ah nañu xool seeni euh, besoin besoin alimentaire ndax lekk gi ak naan gi moom ah ci santé bi la bokk léegi d'accord nañu ci nga xam ni dañuy tere ñi nga xam ni ci biti lañu ne di jaay ndax xamuñu li ñuy jaay nan lañ ko defaree xamuñu ñoom fan la ñuy jógee d'accord mais ci école bi moom mën nañu may kilifay école yi muy euh, principaux yi wala proviseurs yi ñu tànn ay nit ànd ci ak kuréelu parents d'élèves yi ñett wala ñeent ñoo xam ni dañuy jaay ci biir ay lekk ak ay naan ndax élèves yi bu ñu génnee mën a mën a mën a mën a am euh, lu ñu xéewloo ba mu ba ba dëgër lu ñu dëgërloo loolu tam restauration bi lu wax nañu ko bi ci des mooy ah comme examen bi xale yi fu ne lañuy ñuy ah te dañuy dajale ci école yi professeurs yi kii war nañu am sécurité bu doy moo tax Limamoulaye par exemple proviseur bi moom soxla na lu mat fukki agent de police par exemple te yaakaar naa ni préfecture ak commissariat bi dinañ ko ci dimbali yeneen école yee tam noonu ku ci nekk ak sa taay bi nga soxla ñii juróom dina doy ci ñoom ñii fukk dina doy ci ñoom et ñu dimbali leen ci sécurité bi daal niñ ko laaje daal ñu xool nan leen leen cee dimbalee ba sécurité bi ñoŋ mhm. waaw tey wax beneen bi mooy aussi pour professeurs yi bu ñu corriger élèves yi mhm. ndax élèves yi bu ñu fàtte ni ñoom ñoo leen di jàngal élève bi moom mënula tari loo xam ne jàngu ko te ñu ngi ci situation boo xam ne dafa xaw a difficile mhm. ndax heure bi bu fekkoon ni ci situation normal la ñu ne ñu ngi ci vacances te ñu ngi nekk encore nawet li ñu waroon a jàng yépp jànguñu ko kon dañ leen di bàyyi ñaan rek waxuñu leen ñu ñu ñu ñu def loo xam ni waruñu koo def wala di leen may ay notes yu mérité wul wante ñu xool ni situation bi daal euh, li mu laaj mooy ñu bañ a sévère trop waaw xam ni ah situation bi moo moo laaj ñu teey ci li ñuy def bi ci des te moom laay mujjee mooy lycée yi par exemple da am ñi science ñi littérature day am série S série L. waaw yow dafa mel ni da nga ko tënk lépp <laughs> littérature rek lañu ñu aay. Uh-huh. aay nañu littérature dañ ci am note yu baax a baax mais dañ leen di téye ndax seeni note ci mathématique ay sciences physiques par exemple ci note scientifique yi baaxul. Uh-huh. mais ñoo tam damu doon xalaat. comme bu ñu demee université bu ñu fekkee littérature la ñuy def du ñu gis dara ci science ñu dimbali leen rek parce que ñaari point ñetti point te discipline scientifique yi bu mu leen xañ seen bac ñu def discipline scientifique aussi bu leen point yu manqué ci littérature xañ seen bac ndax dañu nekk ci réew yoo xam ni wax dëgg yàlla dañu war a seet ay nu ñu génne ci sous développement bi wut ñoo xam ni dañu xarañ ci domaine yu ñu bu ñun amuñu ay expert ay nit ñu médiocre rek la ñu am ay dix ay onze ay ay fu nekk nga am fa douze xam nga baaxul boo soxlaa expert feneen nga koy jël ji mhm. mais ñi nga xam ne ay littérature ay quinze ay philosophie ay dix-sept la ñu am waruñu leen a téye parce que ay cinq la am mathématique wala science physique mhm. ñi nekk ci xarañ aussi science physique di ci am ay dix-sept ak dix-huit waruñu leen a téye parce que français ak philosophie ay cinq la ñuy am oh. waaw professeur kon loolu daal moo ñu wax ci li nga xam ne moom mooy euh, li ñu nemmeeku euh, c'est vrai que yëkkati ngeen ko ba ngeen di jàkkaarloog taskatu xibaar yi mu doon ci seeni euh, inquiétude tey gis nañ ne nawet lañ nekk muy contexte bu particulier gis nañ li fi xew ci examen CFEE yi ndax yéen jël ngeen ay matuwaay. xam nga ñun parents d'élèves la ñun bàyyi ak yaayu ndongo yi la ñun amuñu matukaay yu ñu jël xanaa suñu làmmiñ la yore. Mhm. suñuy xalaat. Mhm. moo tax tey ñu def point de presse bi dajale si ci taskatu xibaar yi ñu mel ni yéen pour ngeen jottali autorité yi nga xam ni ñun ñu ngi koy ragal ndax ñu li amoon ci CFE am ci BAC bi am ci BFM bi mhm. dañu bëggoon ñu seet école yi nga xam ne xam nañu dañoo nekk ci gox yoo xam ni euh, mbënd mi daf leen a yàpp ñu bañ koo def centre d'examen ndax ca wet ga dina am école yoo xam ni libre nañu wala bërëb yoo xam ni libre nañu yaatu nañu mën nañ faa def centre d'examen mhm. ñu xool aussi euh, salle yi nga xam ni amul étanchéité nga xam ni dafay senn nga xam ni ay dossier de bac wala ay copie yu corrigé dañ fay ne ñu bañ faa dugal ay ay nit ndax itam war nañoo fexe ba ñi nga xam ni jàngalekat yi ñëw di corriger jóge région ba région ñëw ñu nekk foofu ci en confort nekk à l'aise mhm. waaw yooyu loolu lañu ñu wax quoi. loolu ngeen yëkkati am na leneen tamit muy euh, bac bi résultat yi dinañ ko jaarale ci lii di SMS yi ak rajo communautaire yi ñu bëggoon xam seen taxawaay lan ngeen ci xalaat. ah léegi de biñ ci waxtaanee parents d'élèves yu bëri daal. loolu daal jaaxal na leen. lu tax mu jaaxal leen waaw lu tax mu jaaxal leen ndax dafa am. leneen li nga xam ne moom ngeen ci élèves ya fa nekkoon aussi ndax invité woon nañu ay élèves ndax bëgguñu wax ñun kese mais élèves yi itam loolu d'accord ñu ci. lan la ñuy yëkkati parce que d'abord ñëpp ñëpp amuñu portable. Mhm. ñëpp amuñu ordinateur. te réseaux sociaux yi xam ngeen problème yi ci am yëpp. Mhm. ñun dañu yaakaar ni comme élèves yi. dañoo jóge seeni kër baay ak seeni kër yaay dem ci centre d'examen yi def fa seen examen amul problème mhm. noonu mën nañ ko defaat rek dem jël ji seen résultat du am problème du am problème moo gën ay SMS ak yooyu ndax dañu nekk ci réew moo xam ni ñëpp ñu am am yëpp yemuñu yemuñu mën-mën mhm. ñëpp jotewuñu ci euh, réseau yi ñëpp jotewuñu ci SMS yi waaw. Mm-hmm. te uh, day am ay problème yoo xam ni yii xam ngeen am na ñoo xam ni dañoo ay ci problème mu SMS yeeg affaire yooyu yéen a gën a xam li ma bëgg a wax. d'accord il y tellement de problème ci réseaux sociaux yi que vraiment. Euh, li gën daal nga jàkkaarloog nit ki jox ko ay résultat am moo gën a wóor. moo gën a dal seen xel daal. moo euh, gën a dal xel daal waaw daara yu kawe yi université yi ñoom it le premier bi la ñu fas yéene delluwaat en fii delluwaat ci classe yi euh, nan ngeen jàngatee li ni mel ndax am ngeen yaakaar ne malgré existence Covid bi ñoom ah, dinañ respecté ah ko nar defee par vague. manière graduelle bu bi ñëwee après beneen série bi du ñu ñëwandoo ñoom ñëpp. waaw looloo tam daal ñu ngi ciy réfléchir ndax itam loolu ñuy def ci daara yu kaw yi xam naa moom moo nar a am ci yeneen daara yu diggu doom yi mhm. waaye itam xaw nañu jaaxal mooy li ma ko wax rek ci njëlbeen mooy bu fekkoon nii bi mbir mi amee euh, wóolu nañu ñi ñu dénk école yi muy école yu ndaw yi école yu diggu doom yi ak université ñu waxtaan ak ñoom ak seen personnel ñoom dinañ trouver solution. Mhm. mais bu fekkee yow yaaw yaay décider rek da ngay nekk fee yow xamul li xew ci terrain bi. Mhm. ngay wax euh, des fois da ngay joxe mesure yoo xam ni ñun dañuy appliquer rek chef d'établissement yi dañuy appliquer mais li ñuy appliquer du fekk loolu moo leen gënal. d'accord dajale ñi nga xam ni ñoo nekk ci suuf. daal nga xam ne ñoo xam problème yi ñoo ñu boo ko defee da am kii da mooy mooy gën. en une minute rek justement activité littéraire mille 2020 nan nga ñu ko. waaw activité littéraire yi moom xam nga dafa càng ndax mënuñu ñu dem conférence. man amoon na pièce de théâtre boo xam ne mooy Adja militant du grâce commencé woon nañ ko jouer Sorano mais dañ ko interrompre ndax problème mu coronavirus bi mm. donc euh, ñu ngi gërëm nañ chef de l'état ndax itam nemmeeku na am na lu ñu envoyé ñun bindkat yi ak artistes yi. merci beaucoup monsieur Fall. ah Elisabeth yow laay yow laay wax jërëjëf. merci beaucoup Marouba Fall muy euh, président association des parents d'élèves bu lycée d'excellence bu Limamoulaye bu Guédiawaye